ñëw ma pour nga may ma xaalis mais dama lay namm barki alxuraan. mais li nga sant tey lu mu tudd lu ko bi jàpp la nga chance may nga ñëpp chance maar nañu di yow man ak yow. waa léegi bi jox ko Baye ma wey ko ba wey rek ñibbil Fulka bu kenn tëgg bàyyi ko bu fecc ba toog baa ngi Thiès waa dama ne ñu di yow Duhajjal day feeñaat léegi day feeñ xoolal ma ne ko la ko Cheikh Fadi Thiès kaay jaajëfati ah c'est un artiste c'est un artiste c'est un grand artiste merci beaucoup aywa ñu dem tam on comprend. Donc Mia, bienvenue à toi. C'est un plaisir de te voir toute charmante, toute jolie, beaucoup plus jolie que beaucoup. Mention spéciale à toi. Mention spéciale à tous les danseurs, danseuses aussi de, de Mia. Mais mais mais Oumou Nero xam ne tey de. Oumou Oumou Mia ma. waa xarit lii lan la nii. eh waay ndaw Samba. ayca mu ngi noonu donc euh, Richard. xam nga li ñuy def léegi. Ah, ah. dama gis ay humoriste fii. waaw dama gis ay artistes. Ah, nga xamante ne dans le milieu des séries bien sûr ñu ngi fii. y a des chanteurs y a des chanteuses. Mm-hmm. tey avant l'arrivée de de nos deux stars bien sûr on va appeler one by one ces ces artistes qui vont venir ne serait-ce que pour une minute deux minutes témoigner de leur amitié. de Bril parce que quand même on peut en citer beaucoup d'artistes qui ont eu à travailler avec Bril, beaucoup d'artistes. Thank you. baax a sa lan la tey toute belle. waa gis nga di jàppale sama rakk rek moom moo xewle donc dañoo ñëw pour jàppale ko tey. tey sa sama du sax mais sama doom la ndax depuis ses débuts yoo xam nga ci man la nekkoon donc tey mu xewle mu normal que ma teewee ko soutenir ni nga ko nga xale ak dugg ci sëy boo xamoon loo koy conseil lan lay doon di ko wax na muñ parce que sëy yombul man maa ngi ci sëy ça fait loo xamante ne la bokkul ak relation donc muñ bu baax a baax a baax déggoo ak jëkkëram muy waxtaan communication lu am solo la si ban message ngay jox seen chéri bi di Bril ah waaw mu téye bu baax suñu jël suñu rakk jooju noonu ndax jabar lañ ko may quand même mu téye ko bu baax comprendre ko parce que xale tamit lañ ko may mu jàppale ko bu baax a baax aussi. merci beaucoup ma chérie Aïcha doxal naa ngi daal di dem. merci Aïcha mu ngi noonu doxal. métier ci belle comme ça. merci merci beaucoup merci. mais bis bi cofoo ko de. non non jox ma ko parce que sama rakk moo xewle. mu la sañsel. Euh, bàcc moo ma sañsel. tournel ñu xool sa sañ nga wax baax. merci beaucoup merci. sa diggante Dieyna Baldé lan la. Dieyna euh, dafa nekk sama rakk ju baax bu ma bëgg bu ma déggal xam nga mu jël bés bi rek sas ma ci tamit loo xam ne pour ma gérer gan yeeg yooyu noonu xam nga rek xam nga am na fu mu la teg ma koy seen bi yàlla ko euh, lu mu ci bëgg yàlla defal ko ci yàlla may ko ay njaboot yu yàlla la fa leen cat. ban message nga koy jox comme xale la a dugg ci Cour des grands. mu gëmm na gëmm tax lu rek bañ a déglu kenn jël jëkkëram def ko xarit. jël jëkkëram def ko xarit a am xarit bañ jël jëkkëram def ko lépp. teral nañ moom macha allah ñun dañoo kontaan amatul lu ñuy wax. ayca merci beaucoup merci